asalaamaaleykum suñu mbokki ñu tey leen nii bu baax di leen ziar te bay suñu si Wassare Lamb Wassare TV comme ni koy defee rek à chaque fois ah nee naa leen lépp leen bëgg duñ ciy dox naam nag wax dëgg yàlla bañ defee moom itam si yàggut mais nee naa leen ñi ne ko taamu muy Lac de Guiers numéro 2 euh, ñu fas yéene waxtaan ak moom nag euh, ndax gis nañ instant bi àdduna li mu dëggee bien vrai que nag dañu waxtaan ak ñoom ci làmb ne instant bi dafa am loo xamante te ñoom ay porteur de voix lay nekk rek ñoo xamante ni nekkul lañ war a wax ñu fas waxtaan ak moom Lac de Guiers maa ngi leen lay fay maa fii di la ziar di nuyu axlu làmb di koo xam ne da ngay bëggee bàyyi ma kenn ak àdduna di nuyu grand bàyyi góor sama copain euh, waaw. Lac de eh, gis nañ ne ren eh, eh, saison bi gisee saay na. ndax saay na. waaw nga nekk. nga buux ma ko man donc bëri bëriwuñu kay. non bëri bëriwuñu mais comme instant bi yow ci lan nga nekk. ah man damaa ngi comme ni ma fekkee nii. Mhm. dem cokki cokki dem géej. Mhm. entraînement ñëwaat. Mhm. jeex na. mais yow en tant que mbër mën nga jàngatee saison bi ak lamb instant bi fi mu toll que amoon nga yaakaar ne lamb toll mën waaw xam nga ma fi euh, xam nga tey làmb kenn ku nekk ñaanoon yàlla mu toom la fii parce que feebar bi nga xamante ne moo dugg ci àdduna bi dugg Sénégal xam la moo tax activités yi bëri wàññeeku man activité yëpp taxaw sax benn wàññeeku la yëpp taxaw kon donc lii bu amee xanaa ñaan yàlla rek yàlla jëlee ko fi pare ku yàlla jëlee nag ah ñu xool ndax am déwén dina doxam wala dox mais euh, est-ce que tey mbër war mhm. ji euh, ci amul métier moom tey nga dee dootoo ko defati waaw ah, mbër day am métier day am métier bu fi échecé nga daw taabante fi nga nekk waaw te ñun bi ñu nekk nii moom man ah man ma maa ngi ak seen métier man mais pour le moment nii. dañuy entraîné ba ci kanam waaw ñi ci amul métier nag ñu fexe lu am métier wala ñu dem xool leneen lu ñu mën a def wala ñu dem voyager te voyage même boo ko defee tam boo amul métier dina métti ci yow waaw. ce que promoteur contacté na depuis lors ndax ba léegi heure bi ñu xëyee ñu gis say combat. Hmm. gars di ko publicité ñu bari sax sa combat ak Gris Bordeaux ah, ndax dañuy seeti ay ndaanaan ñu teg combat yi mais Lac de promoteur man du ma wax ak promoteur nag Père Ali la ñuy waxal sama manager ñoom ñooy faral di wax ak euh, promoteur yi waaw mais man promoteur contacté ko waaw. mais sa combat ak Gris bi gars di wax ne yéen ñaar. bul yàq turam. Ah? bul yàq turam. courant. man Gris Bordeaux mais seen diggante yéen ñaar gis nañu combat bi gars yëpp dañ koo bëgg. non da may tontu sama diggante courant. samay kàddu. combat boobu gars yi ma sama diggante courant. sa combat sama diggante courant. mais combat boobu noonu. courant. combat ma ko wax parce que Gris sama xarit la. courant sama diggante yow lay wax nii fi ne nii. mais combat boobu noonu ni ko gars yi di waxee de ndax maa ngi ciy rendre compte. Ah. waaw gars dañ ciy wax mais est-ce que Gris Bordeaux bëgg na ko. mais Gris parce que combat bi àdduna eh, eh, àdduna mën nañ ko bëgg mais Ndeye Mbiligi est-ce bëgg na ko. yow sant hmm. ah nañ leen dem bu ko laalee dina ma jaaxal trop. Ah, moom laaj leen ko bopp mais xam naa ne man sama avance bu mu dox laal hmm. sañu ko sax laal. Hmm. Gris Bordeaux bu fi tafaati euh, parce que tamit déggoo lu ma la wax tafaati du ma ko laaj moom moom ma war a laaj ndax man maa ko daan waxuma la bañuma tafaatin de mais doo ko laaj mais du ma ko laaj moom moom may laaj ndax man maa ko daan su ma ko laajee day mel ni moom a gën a baax yoon ah, mais bàyyi nañ ko fi de man bàyyiwuma ko fi te ñi ma bëgg rek tafaatin barki Sëriñ Si lu leer laa la wax. kon bëre bi nga bëree woon ak ma la wax na combat ba taxaw rek mais duma ko laaj nag moom na taxaw laaj ma ndax mën ma ko daan <laughs> saa waay ci làmb ji fii nii ku ci yaakaar la dëgg la ragal yaa ngi nax sa bopp. déedéet ah Tapha Tine na taxaw laaj ma promoteur dox ko. ma may ko revanche am bu bëggee loolu doon benn problème. te day gaaw. xaw ma day gaaw xaw ma doon combat bu neex comme nee nañ màgg na xam naa man maa màggul nag man man xam naa màgguma maa ngi taxaw fa ma taxawoon ba léegi comme nee nañ màgg na léegi la da màggul nag. ba léegi ténor yi euh, xam nga dañ cee bare adversaire macha allah. Euh, kii Eumeu waaye doo bàyyi ma àggali. non doo àggali dama lay wax bi nga xam Eumeu Sène ma daan. Hmm. na ma bor dama fay sama yooyu yëpp boo doon choisir ban combat nga ciy gën a choisir combat boo xam te yaa ko bëgg ab personne bëgg nga wane sa bopp. Eumeu Sène. Ah, parce que moom ma daan. moom moom ma daan ci nit ñi li ñu wax ah moom ma daan moom laa bëgg mu jox ma sama revanche. mais est la war a bëri ak laa war a bëri mais fu mu ne nii man fu mu ne sama rêve leen la rek bëri roi des arènes comme ténor yëpp bëri nañu roi des arènes xoolal baax ban ténor moo ci bëriwul roi des arènes. ah mais nga roi des arènes. kan Maodo ba may bëri moom dafa yoroon roi. moom ah ok ah waaye bëri nga ak moom de. waaw bëri naa ak moom mais ba may bëri moom jotu teewul roi. Maodo bëri naa ak roi bëri waat ak roi ah voilà Balla Gaye bëri naa ak roi Eumeu Sène bëri naa ak roi Gris Bordeaux bëri naa ak roi Tapha Tine bëri naa ak roi man coono maa ci bëri gul ak roi mais lan la lu ñuy ragal. mais Modou dafa nekk ci dugg ba sa tëggul. waaw moo tax duñ ko ci déranger foofu dañ koy bàyyi mu ne ci jàmm. mais xel côté boobu. sama kan xelu kan. Mm-hmm. sa xel ba ah, bien sûr moom moo yor lu ñu bëgg. Hmm? moom moo yor lu ñu bëgg. Mm-hmm. te nit ki moom li mu li mu yor kay. yow boo soñoon am télé. Mm-hmm. wala noonu. ah mi noonu man ma soñoon yor roi. kon mën nañoo wax ni euh, Lac de ni ngay waxee dafa mel ni comme si yow lenn rek instant bi mooy sa mbébét muy nekk roi. ci kàttanu yàlla loolu rek moo tere nelaw ndax ñi nga xamante ñoo ngi ma ko doon ñaanal fu ñu tëdd ñu mën a tàlli. kon promesse nga sama yaay dem si yàlla maam ma ñooñu ñaanal lañ ma ko. kon daal da benn promesse. boo xamante ne loolu moom rek moo def sama carrière xanaa ma ñàkk ko bañ a bëre ñu may daw bañ a bëre ak man maa ngi toog li ma bàyyi ci lamb mooy ñaar yooyu. jour toog war a fëgg tey war a bëri roi des ma bëreel ko ñaar ñi dem si yàlla mam ma ak sama yaay. Hmm. mais nag dafa am loo xamante dañ koo gis tamit ci lamb ji muy yéen. ñi xam te nekk ci kaw yow Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Tapha Tine di gaay dox ñu bari mais yéen dong yéen a nekk ci kaw yow au moins sax xaw ngaa wàcc mais yéen yéen tax instant bi làmb ji xaw def nii. xaw a baissé. waaw parce que yéen yéen a nangut a wàññi. te yéen wàññi wàññi lan. koppar foor gi ba làmb ji commencé nax saay. yow kii làmb dafa métti de làmb da koy dégg ne gis nga. bu xasee ba taxaw bañ teg xaalis ci table bi jox lañ lay jox jox la sa moitié mu des moitié balaa date baa jot nga financé lépp dugg ci àll bi def say sarax say nit ñi ngi xamante ne seen loxo jotul ginnaaw ñëpp ñu te par force dañ leen jox parce que yàlla moo ko jaarale sa loxo par force moo tax làmb dafa mett dañ koy dégg nii rek waaw te ñi nekk ci kaw. pour làmb ji gën a mën a yaatu comme suñu raq ñu ngi ñëw ci kaw war a mën a yaatu man jot naa jàll bare man def naa sama waar léegi ñoom na nañ mos ci suuf ñoom tamit. mais fan nga jàll. na jàll na. non ma ne booy mosal naa ci ñaar. ñan nga mosal. mosal naa tonton Papa Sow. Papa Sow da nga ko tonton. <laughs> man maa koy tooñee noonu. waaw ah, non yow Batikaan. <laughs> di te nga bañ a dugal ko ci détail. <laughs> wasalaam. waaye yow mais il ragal Vatican. non Vatican ragaluma ko. du loolu de ragaluma ko de. nee na boo bëggee mu jox la avance. mu jox la revanche mu jox ma revanche yow nga jox ko revanche yow. man ma jox ko revanche. waaw waaw d' accord naa la jox revanche. waaw. après Papa Sow ñu naan tontu après Boy Niang. waaw après nag ñeneen ci kaw nañ may ñeneen. ma def naa sacrifice ñaari yoon. ah ñoom de nañ ñu def sacrifice rek. yëgal booy parce que booy tamit ku ci prouvé. ku ci prouvé dëgg li tax ñu wax prouvé. am nga droit yéeg ci kaw. kon su ma déggee booy ku ci prouvé rek da sax pare na pour may la chance. booy rek. ku ci boo war a yéeg moom am problème grave. man moom naa pour may la comme ni suñu mag yi mayee chance. suñu papa yeeg suñu suñu wax nga ko léegi ndax am na booy yoo xam ne ñu ngi booy xam ne ñii ay xam nga ne bari na fi. parce que boo fi naree cité moom day bëri. mais am na ñuy suivre. waaw am na ñu may suivre ba fan yële passé am naa ku ma jotoon suivre muy euh, je crois ma soq la ma magu soq. moom moo doon nettali xaw ay temps ba bañ na julli. yaa ngi dégg nee nañ dañ doon sàcc di daw di dem di julli. xam loo wax googu noonu marqué ma trop. boobu daf maa marqué. maanaam ndeysaan parce que mu ngi naan dañ leen doon tere ñuy julli si je bien. waa jatli ah waaye ma toog di ko seetaan ndeysaan sama ma yëg dara sama xool ma ne ndeysaan kii maanaam mu ngi doon daw di dem di julli ji. léegi affaire boobu marqué ma nag yaa ngi dégg maa ngi daal kii daal. dina nekk champion bu ko gëmee tuuti. waaw bu ko gëmee ak rakkam ji yëpp ah. a waaw bi ngëm-ngëm la kenn moomu ko. am na mbër yu nekk géejawaay fii ay champion yoo xamante ñu ngi biir géejawaay yaa ngi dégg ay ndaanaan yoo xamante ne bu ñu amee jàppale tuuti rek dañuy dem booy nekk géejawaay fii mm-hmm. bu ñu amee tuuti jàppale rek dañuy dem. am na benn boy bu ma ci demoon open press am te mu nekk Géejawaay boy bi. Pape Thiam Pape tamit bu góor góorgóorloo tuuti wallahi day dem waaw. waaw booy yooyu daal waaw mais daal loolu lépp lu ko ëmb daal booy bu ñu góorgóorlutu booy nekk géejuwaay bu ñu góorgóorlutu dinañ lekk ci làmb dara waaw xaw ma nag ñu ñàkk ko gëm. mais lu ko ëmb daal maa ngi ñaanal Alioune Seye 2 parce que kooku dafa mel sama xol moo tax chaque interview bu may wax rek day mel day taxaw sama biir xel bi parce que dama dama ko bëgg. ñuy waajal claf. bi hmm. ñeneen claf bi ñeneen ñeneen la. comme hmm. hmm. na. benn na xam nga cité gu. Modou Lo ah nga ne Eumeu Sène na Tapha Tine. Gris Bordeaux mën na la mën na la mën na la bokk na bu ci Eumeu Sène rek bokk na. classe bi da kese bu ci bokkoon rek bokk na Eumeu seen bu doon kaat man bokk naa. moo ma yoral bor. du ñu daan ba pare na na na du bëre ñun. yow bu bu bu bëriwul ak Balla amul problème mais man damay bëri moom ndax dafa maa daan. su bëri tawee man ma fekk ba seen kër. ma fekk ba seen kër. ama seen bu dee bëriwut maa la fekk. ma fekk ba seen kër boole ko ak picc bu yooyu ndax dinaa bëri moom ah dama daan pare du ma daan pare demaa leen moom noonu xanaa day bàyyi. force force da ngay bëri man dangay ngay bëri man de doo bàyyee noonu leer laa la wax ah ma daan de. pour yéen ñu ngi suivre sur Wassare Lamb Wassare TV Lac de Guiers numéro 2 wax dëgg yàlla dañuy am chaque jour nag contact mais Lac de Guiers euh, beneen bi mooy que ni euh, wax nga ko euh, Bombardier gis ni déwén incha allah la 45 ans di mat. waaw te gis nañ am na ñu war a bëreel. te wax dëgg yàlla nag Bombardier nag nekk ci xol yi. te nga te CNG. 45 ans yi daal da ngay kii mais loolu après yow yow yow nan lan nga loolu boo ko déggee ak tamit loolu lu muy gis yow ba mu xajee est que ay sama war na mën a bëree bëriwaat de bëriwaat bu génnee affaire yi xaw a wàññeeku tuuti de. waaw genre mel nañ leen bàyyi ci làmb daal parce que instant bi amagum na capacité pour bëri yeneen yeneen mën na may ay raqam may ñeneen. parce que nga taxaw rek na ba damay bëreeg Bombardier rek loolu dafa neex ci xol yaa ngi dégg te Bombardier nekk fi koo xamante ne boo xool nga naan kii màgget la déedéet war na mën a même baaboo yi sax warul woon mën a bàyyee noonu mënoon nañ leen bàyyi ci làmb tuuti rek ñoom bu ñu toogee dinañ dem bu ñu toogee ba si biir dinañ xam ne ñoom moment bi c'est le bon pour ñu bàyyi làmb waaw. ok kon yaa ngi sa digg doole. 45 sa digg doole dëgg waaw duggee ci 46 47 yaa ngi génn gàmm. pour 45 euh, waaw mais 45 waaw na xoolaat kay mais bon comme CNG moom ndogalam moom bon kenn mënu dara dañ nañu bàyyi noonu ñu xoolaat rek. Mm-hmm. ah beneen bi tamit euh, mooy gis nañu instant bi yooyu ñëpp xam nañu porteur de voix ga <laughs> gis nañu Sénégal instant bi fi mu gis nga xale yi barki dem bay jaay si tamit sax dafa nga gisati déggati affaire nga xam ne mooy tarixa yi ñu gis ne Sénégal forme yi dafa commencé waat mu waat en tant que porteur de voix ñu nga gisee instant bi àdduna bi nu mu tëddee ah daa mel ne adduna yi waaye tukki de affaire bi moom dafa ma jaaxal man mais bon leen rek lañ mën a def saa ji ko jëfee rek nañuy waxtaan ak kilifa yi ñu yeddaat seen doom yaa ngi dégg def naa loolu bu amee rek xale yi dinañ xam fu ñuy teg seen tànk parce que moment bii di xale mu lu ko fëq dafa yomb. lu koy jékki-jékki rek fokk ko ni dafa yomb trop moo tax parents yi nañuy waxtaan ak seeni doom bañ na rek damay dem liggéeyi rek jeex na après yaayam mooy topp la ci des te du la yaay day xool doom mais itam bàyyi daf ci war di bàyyi xel bu baax a baax waaw. ñaan kilifa diine yi ñun ñëpp di ñaan parce que ñun amuñu lu dul Sénégal. kilifa diine yëpp ñu ngi leen sàkku ñoom ñëpp ñaan ñuy jàppale ñu ñaan ndax dëkk bii nii li ma gis nii man jëmul kanam de jëmul kanam de kon donc nañ ñaan yàlla yàlla sotti ci ndox mu sedd gaaw kilifa diine yëpp ñaan ndax jàmm di am. gis nga action affaire maanaam géeru tarixa kom nan. comme ñii di xëccoo fii kii di def fii. <laughs> est que loolu Sénégal euh, moom na arrangé na na ñun. <laughs> xam nga nit ñi ñoo xamul maanaam dafa ñoo xam ne xam nañ mais dañuy jéem a tànqam mais tarixa yëpp benn la bu ñuy rang jëm ci yàlla benn rang bi rek lay doon. <laughs> doo gis ñaari ran ñetti ran yi diw kii ma nga xam ne ñëpp fa yàlla ku nekk la nga gëm na nga ko gëm te bañ a diingat kenn ñoom ñëpp fa yàlla la kon donc nañ bàyyi di wax fii di wax fee sama lii moo fi gën sama lee moo fi gën ñëpp a gën ñëpp a gën ñëpp ay jëm ca yàlla kon ngir yàlla war a suli dañ bàyyi yooyu ndax loolu day yëngal réew ñun ñëpp benn lañ ku nekk la nga gëm na ko gëm te bàyyi kee la mu gëm mu gëm ko loolu rek la. beneen bi mooy ñëpp nañ gis nañu gars yi nañ làmb amatul kii comme amul mucc. amul mucc. amul ndax dañoo gis ni euh, comme le cas de Jules Baldé Junior. di ko mhm. nuyu di ko ñaanal. ñu gis ni léegi mbëri. Mhm. ku ci feebar ñu ngi defal ay téléthon. Hmm? ku ci ku ci feebar. waaw ñu ngi ay get ñu ngi laajte fii ndax gis nañ ci lu bari. Hmm. jour Balde junior feebar la gis nga aide bi ñu lay suñu papa booy bambara feebar la ñuy doon def ay téléthon am na mbir yu bari yoo xamante ne ñoo xamante ni sax ñoo nekk ci làmb kenn gisatu leen ñu feebar. Hmm. est-ce que tey yéen mbër ak fi ngeen toll jarul ngeen defaraat nga xamante ni tey. moom mooy seen ah, seen seen li ko defaraat seen toogaay kër yi ku ci feebar wala dara di nga am loo xamante ni sax au moins dañ ñu ko jàppale mais lan nga gisee action boobu mu demee. waaw xam nga tey mbër bu feebar rek charge dafa war a am fa mu jógee mbër day dagg assurance waaw wala déet mbër boo gis day dagg assurance ah man de dañ may dagg ay assurance pour man. le cas de Jules Baldé Junior bu feebaree CNG war na def benn acte bu ndaw ñu jàppale ko jëm ko faj def naa loolu nekk la loo xamante ne du leen wàññi mukk da di yokk rek parce que élément la boo xamante ne dafa doo ñëw pour gagner sa vie ci làmb ñu koy dagg. ci bële ba mu junior ba mu commencé bëre ba wax ne ko dagg duñ ma wax ne moom mosul am assurance kon donc loolu bu amee pourtant CNG war nañ leen mën a dimbali débloqué benn somme boo xam wala ñu jël ko jël ko en charge ñu xam ne au moins sax CNG def na benn act bu ndaw pour mën a dimbali yenn doomu aadama yi mais tey ku ci gaañu wala ku ci am benn kii bu ndaw tey boo amul. doole tuuti rek boo mootu da ngay suux ci benn côté bi ba dañuy obligé di la ketal te loolu pour man baaxul CNG nay jàppale tuuti mbër yi na di jàppale tuuti rek même acte bi nañu xool acte bi rek buñ ko defee rek dinañ xam ne ñii kat bëgg nañ làmb avancé mais ku ci am problème gaañu ci bu komba amee nga am komba ñu dagg la assurance xamula assure ba pour lan la pour ci biir stade bi kese la non pour man assurance bu ñu la xasee ba dagg assurance dañ la war a assure toute une année bi nga xamante ne ba saison bi teg loolu lañ la war a assurer mais non duñ ko def da ngay mujjee sonn ñu ne dang dang di la ketal loolu dafa metti dama leen di ñaan rek waaw ñu bàyyi xel ci loolu daal. MMA yi photo ci MMA yi parce que waxoon nga dangay compétir ndax gis nañ am lu fi amoon ñu gis sa participation nga ñu invité la ci mais MMA yi moom sincèrement pare balaa bi am ci dëkk bi fu mu ne moo tax dara ñu matut moo tax dañuy placer pion yi rek xaar ba affaire yi ubbi affaire yi commencé ñu suñu yoon rek parce que doo tëb tëb rek ñoo dugg ci MMA. daan fa jaar waaw. barki démb ñu ngi dégg sax am ñoo xam te ne ci làmb lañ bokk ñu ne MMA dafa violent. loolu eh, foom góor la rek foom góor foom góor du yomb foo yëpp a violent foom góor dëgg box ak gant sax dafa violent foo yëpp a violent box dafa violent <laughs> karaté tànk yi ñoo jóg des fois nga nga wéq nit mu daanu xam foo yëpp la affaire de góor la. làmb la la ñuy def kenn du sol gant kenn du sol dara des fois nga dóor nit R4 eh, bi teppeeku lépp violent waaw nañ na rek làmb foowum góor lañ ko war a def def nañ ko MMA tamit foowum góor la ku doonu góor yàlla doo dugg ci biir case loolu rek la mais dara nekku si waaw. projet yi. projet yi ne nii lu lépp la ñuy wax nag parce que ñu ngi ci affaire yu grave fu mu ne nii waaw. dama doon fekk may waaj a génn sax. damaa sonn damaa dem dang-dangi ba ñëw ñëw toog war a génnaat nii encore mais yow xam na loo xam ne duñ ko wax fii ndax yow sama xarit nga sama doom ndey nga après da nga ma rek. Ah. ma teg la ci code. Ah. waaw mais est la dëgër ci xam nga comme que dañ nekk beneen euh, saison bu bees. Hmm. bu bees parce que fi nga war a wàcc ndax nee nga roi des. kon la dëgër bu xamaat daa am. Ah? la dëgër bu xamaat daa am. roi des arènes waaw moo tax ma la dëgër bu xamaat amul ba ci kanam rek nañ ba lépp ubbeeku dañuy xam fan laay jubale incha déedéet du wax de. déedéet du ma wax. Ah. ndax boo waxee mbër yi dañ naan kii ba ngay waaj ak doole. Ah. waaw mais yi dañ défenseur. waaw fan yii ñu ngi la gis ñu la dëgër ba défenseur le défenseur. mais loolu noonu après yow léegi mais y' a yaa koy kii. mais loolu dara nekku si. donc changement dafa non. kaay ma la benn affaire day défense ba la day défense ba la mais mu défensé doo ko mës a gagné. waaw kon mu défensé gagné garaaw ci la bokk mbir mi noonu la man yooyu ba ma koy wax sax damay damay doon Kalidou Koulibaly. Hmm, défenseur bu saf saf. <laughs> avance ah. waaye ñoom dañoo xamul luy làmb Père Birame Ndiaye wax na leen ko ba téeméeri junni yoo eh. mais gars yi dañoo xaw a dëgër boobu mm. loolu ci làmb la bokk moom la ba mu ne ko fukk fa la dem taxawi seen buntu kër loolu du rasu tey bu ma dawoon jël sa caméraman bi bu arrière deux pas day daanu arrière deux pas boobu la du rasu rasu ci làmb la bokk mm. gars yi dañu xam loolu. man waaw waaw. kee <laughs> day entraîné moo tax